wajal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa xalbi arsida mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di ziyaara te di leen jéggulu di ñëwaat ak yéen rek eh, ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci suñu jotaay xam-xam yi ni ànd ak yéen ci ay bis jot te doon ànd ak yéen ci suñu bind yi weesu yépp ci téereb sëriñ bi radiyallahu anhu bi nga xam ne moom la tudd tudde Munawwirus Sudur te suñu bind bi mujj ñu taxawoon ci bunt bi nga xam ne moom la sëriñ bi defoon jagleel ko li nga xam ne mooy pay ak ni nga xam ne ni dañ ko war a moytandikoo suñu bindub tey nag day continuer rek di sofaat ci bind boobu nga xam ne ci lañu taxawoon keroog suñu bindub tey di ñu jàngal di ñu fàttali ci buntu bi nga xam ne mooy buntu eh, ñaari nopp moom la sëriñ bi radiyallahu anhu def tudde ko faslun fil uznayn mooy buntu boo xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu daf ko def jagleel ko ñaari nopp li ñu ci war a eh, bàyyi xel di ko ci déglu waaye li nga xam ne war nañ ko cee moytandiku bu baax a baax euh, war ko cee bañ a déglu euh, sëriñ wax ne laata tastamia bul déglu bil usni ci sam nopp euh, maanaam ci say nopp lil manaahi jëm ci lu aay loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf ko aaye xaf fintiqaama ngir ragal fayonteeg amirin aji digle ja wa naahin ak aji tere ja te mooy suñu borom subhanahu wa taala sëriñ bi radiyallahu anhu nee na bul déglu ci say nopp lenn loo xam ne euh, dañ koy aaye lépp loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koy aaye sëriñ bi radiyallahu anhu na bul ko déglu ci say nopp ngir lan ngir ragal suñu borom mi nga xam ne moom mooy digle ak a tere waaye ngir ragal fayonte ga nga xam ne boo ci loo xam ne daf ko araamal wala daf ko aaye fayonte ga nga xam ne moom lay fayonte ak yow li ñu ci mën a déglu nag ci ay nopp ci loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala def koy aaye mën nañ cee tudd mel ni e, nit kuy jëw nga koy déglu mën nañ cee tudd mel ni nit kuy wax loo xam ne e, ab safaan la nga koy déglu mën nañ cee dugal déglu wax ju araam yooyu yëpp mën nañ ko cee dugal ci loolu nga xam ne moom la ñuy euh, bañ nit ki di ko teewlu ak a déglu ci ay noppam moo tax sëriñ bi ne xat xuli xat bindeef nañ ko moom ñaari nopp yooyu lakka ñeel la li kay tastamia ngir nga déglu ca bihaa ci ñaari nopp yooyu kalaamallaahi waxe suñu borom bi subhanahu wa taala fal tastamia kon na ko ca déglu na ko ca déglu te di ko ca teewlu sëriñ bi radiallahu anhu nee li ñu ci war a déglu ci ñaari nopp yooyu day te mooy li tax suñu borom subhanahu wa taala bindu ko mooy aw yiw ak lu baax te loola dara jiitu ca alquranul karim ndax suñu borom subhanahu wa taala moo ñu wax ci alquran ne wa iza quri'a alquranu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun saa bu ñuy jàng alquran na ngeen déglu te xerewlu teewlu ne na xëy na bu ngeen ko defee suñu borom bi subhanahu wa taala dina leen yërëm waaye dina leen e, jéggal kon loolu ab digle la boo xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moom moo ko joxe te it ñu war koo jëfe ci li nga xam ne moo di suñu ay nopp kon bokk na ci li nga xam ne moom lañ gën a war a yittewoo ci suñu ay nopp mooy di ci déglu alquranul karim e, di ko ci teewlu bu baax a baax a baax nga xam ne dañuy bëgg sax nit ki su toogee di jàng alquran Euh, su fekkee ne mucc na ci ngistal waaye mucc na ci ak rëy-rëylu dañuy bëgg sax mu koy jàng ca kaw ngir ñi nga xam ne ñoo toog ci wetam di ko déglu suñ koy teewlu teewlu gan cay am ñoom ñu cay am tuyaaba moom mi nga xam ne moo koy jàng ca kaw di ca am ñaari tuyaaba moom la sëriñ bi da wax ne wa baaduhum fad euh, fad wa baaduhum faddala an yujhara bihi li yasmaa al xayru wa yaqtadi bihi fa yaxsulu al ajraani xaysu maqtada bi euh, bihi lima bi jahrihi bada euh, mooy euh, ki nga xam ne ñenn ñi ne na sëriñ bi radiyallahu anhu ne na ñenn ñi ci boppam gënal nan nit ki buy jàng alquran sax mu koy biral ci kaw di ko wax ci kaw lan moo tax mu koy wax ci kaw lan mooy solos wax ci kaw ga ngir ñi nga xam ne ñoo koy déglu di ko dégg ngir man koo roy waaye moom mi nga xam ne moo koy jàng man caa jële ñaari yool yoo xam ne yoolub jàng bi mu koy jàng ak yoolub ñi nga xam ne ñoom ñoo koy déglu ba di ko roy kon loolu lu ama am solo la loo xam ne war nañoo bàyyi xel bu baax a baax euh, nopp yi nga xam ne moom lañ suñ borom defal xam ne xéewal la goo xam ne euh, su ko nit ki jëfandikoo euh, mën na caa am mm, fayuk suñu borom subhanahu wa taala waaye nag saa boo xamee ne jàdd na ci aw yoon mën na caa amee mbugalam suñu borom bi subhanahu wa taala moo tax sëriñ bi di wax ne in kunta musqiyan li suin bihima saara azaban fafhama nee na in kunta soo nekkee musqiyan di aji xerawlu di aji teewlu ci sa ñaari nopp yooye li ci ay ñaawteef bihima ci sa ñaari nopp yooye kon dana mujj naimuka sa xéewal googee azaban di mbugal fafhama nanga ko xam sëriñ bi radiyallahu anhu mi ngi ñuy leeral foofu ne sa ñaari nopp yi nga xam ne moom la la suñu borom subhanahu wa taala jox de nee na xéewal gu màgg màgg màgg la xéewal suñu borom subhanahu wa taala nag nan la ci jaam war a def mooy daf cee war a sant yàlla waaye dafa war di waxtaane xéewalam googu bu baax a baax waaye daf cee war di jëfe xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala digle waaye di ci moytandiku bu baax a baax euh, tere yi nga xam ne moom la moom la suñu borom subhanahu wa taala di tere nee na ndax saa boo xamee ne eh, xéewal googee day mooy nga ci suñu borom subhanahu wa taala xéewal ga mu doonoon day mujj soppiku doon bugal ci yow eh, ndax na muy doone bugal mooy lan mooy tey ji su fekkee ne suñu borom subhanahu wa taala aaya ne la ne bul déglu ay jëw ci say nopp eh, nga wëlbatiku dem di ca déglu ay jëw bu boobaa jëw yooyu bàkkaar lay jural te bàkkaar yooyu lan la lay jural mbugal rek la lay jural ëllëg yawmal kon xéewal gi la suñu borom subhanahu wa taala defaran defalan nga man ko nga war koo xéewloo di ci déglu alquran waaye di ci euh, déglu euh, li nga xam ne mooy xadis yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ci déglu ay boroomi xam ñu lay jariñ di ci déglu ay xasida di ci déglu wax ju baax yooyu yëpp mujj na naax saay ndax lan ndax li tax suñu borom subhanahu wa taala sàkkal la ko nga waran koo def euh, mu nekk sa yitte waaye nga waran koo def mu nekk xéewal gooy xéewloo danga nga mujj euh, def ko mu soppaliku mbugal moo xam ne ci sa kaw rek lay dal kon euh, ay nopp xewal la ci boroom waaye su fekkee ne boroom yëg na xéewal gi nga xam ne moom la ko suñu boroom bi subhanahu wa taala defal ndax suñu boroom bi subhanahu wa taala ñi nga xam ne ñoom la defal ñu am ay dég dégg yu neex amul lenn loo xam ne moom lañ ko defal ba tax mu defal leen ko ci coobare boppam rek la leen ko defal kon xéewal la goo xam ne daf leen koo jagleel la nga xam ne moo ca doon seenu cër nag ñi nga xam ne ñoom la ko defal mooy ñu ko cay sant waaye di ko ca delloo njukkal bu baax a baax a baax a baax moo tax suñu borom subhanahu wa taala di wax ci alquran ne walaw saa allahu la zahaba bi sam'ihim wa absaarihim inna allaha ala kulli shay'in qadir su sooboon suñu borom bi subhanahu wa taala day seen dégg yi ngeen di dégg ak gis yi ngeen di gis lépp euh, moom suñu borom bi subhanahu wa taala daf koy jëlaat def leen ngeen nekk ay tëx euh, ak ay euh, njaaj ay ay ay gumba yoo xam ne du ngeen mën a gis te bu boobaa du ngeen te man dara kon na ngeen xam ne loolu la leen suñu borom bi subhanahu wa taala defal muy dégg yu neex yoo xam ne lu ngeen war a déglu man koo déglu ni ngeen ko bëggee waaye lu ngeen war a gis man koo gis na ngeen ko bëggee lool du seenu njàmbaar du seenu góorgóorlu waaye yàlla da ko def ci coobareem dong ci coobareem dong la ko defee te it bu ko neexaan loole mu rekki ko ba mu set wicc ba nga xam ne kenn ci ñun dootul mën a gis wala kenn ci ñun dootul mën a dégg kon sagam suñu borom bi subhanahu wa taala daf ñu koo defal te mu xéewal goo xam ne ñi ngi koy xéewloo xéewal googu lañu ca war a teg rek mooy sant ko te nanu ko ca war a sante mooy lan mooy digle yi nga xam ne moom la ci digle ñu koy def waaye euh, tere yi nga xam ne moom la ci tere ñu koy ñu koy moytandiku bu baax a baax te it ñu xam ne euh, loolu nga xam ne mooy cëri doomu aadama yooyu te ab dégg-dégg bokku ci bokk na ci nga xam ne ëllëg suñu borom subhanahu wa taala dinañu ko dinañu ko laaj ku ci ne noo ko doon jëfandikoo xiiwal googu noo ko doon jëfandikoo ak noo ko doon saytoo suñu borom subhanahu wa taala dinañu ko laaj ndax suñu borom subhanahu wa taala mooy wax ci alquran ne inna samaa wal basara wal fuada kullun ulaika kaana anhu mas'ula na ngeen xam ne seen dégg-dégg yi ak gis bii ngeen di gis ak seen euh, xol yi li nga xam ne moom ngeen ci fas ak li ngeen ciy xelaat na ngeen xam ne loolu lépp ëllëg suñu borom bi subhanahu wa taala dina leen ko laaj te it di ngeen ko ko euh, wax ba mu leer nañ lu ci ne ni ngeen ko doon jëfandikoo bu fekkee ne daa doonoon xéewal goo xam ne yàlla daf la ko joxoon nga ci topp sa bànneex di di ko jëfe nam la neexe bu boobaa euh, man nga caa am daani suñu borom subhanahu wa taala kon lii nga xam ne moom la ci ab jaam war a def rek mooy di xool bu baax a baax li ci suñu borom subhanahu wa taala digle muy euh, lu mel ni déglu ci alquran waaye bu dee bët yi lu mel ni di ci xool alquran bu dee xool bi lu mel ni di ci xelaat li nga xam ne mooy li suñu borom subhanahu wa taala bind yu mel noonu boo ko ci dee def ëllëg bu suñu borom subhanahu wa taala laajee di nga mën a amulay waaye su fekkee ne nag danga nga def ay safaan di ca def ay moy yàlla yoo xam ne yàlla daf koo araamal bu ëllëgee bu suñu borom subhanahu wa taala taxawalee di la laaj euh, euh, sëgg rek ak gàcce rek moom ngay moom ngay daal di am euh, suñu borom subhanahu wa taala di waxaat ba tey ne qul huwa allazi ansha'akum wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma suñu borom subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo leen bind euh, sos leen waaye defal leen ay dégg-dégg defal leen ay gis-gis defal leen ay gis-gis defal leen ay xol ngeen war cee ngeen war xelaat bu baax a baax ci loolu nga xam ne moom la leen defal euh, ndax xéewal la goo xam ne euh, kenn ci ñun mënalu ko sa bopp kon la nga xam ne moom lañ ci war a jëfandikoo te war ko cee bàyyi xel mooy lan mooy di ko ci sant moom suñu borom bi nga xam ne moom moo ñu ko sosal euh, te defal ñu ko te it amul lenn loo xam ne moom lañu ko defal ba tax mu euh, defal ñu lool waaye nag suñu borom subhanahu wa taala nee na ñu niiw a niiw ci jaamam ñi ñooy ñooy ñi nga xam ne ñooy fàttali ko xéewal yooyu di ko di ko sant euh, ñooy fàttali ko xéewal yooyu di ko sant sëriñ bi di waxaat ne wala tazunna bul jort anna ismal ghibati ndaka bàkkaarub aji jëw yuxtassu def na ko jagleel bil xaayidi ci aji wax ja fil musibati ca musiba ma nee na bul jortu mukk ne bàkkaarub aji e, jawde moom mi nga xam ne mooy wax rek moom mooy ki nga xam ne moo koy moo koy moo koy moo koy amee waaye yow mi nga xam ne da ngaa toog ak aji jëw ji muy jëwte fem moo ko ko muy wax e, di continuer ci di yàq derum nit nee na na nga xam ne yow mi nga xam ne yaa ngi toog di ko déglu ak sa ñaari nopp sa noppu yooyu day am ci bàkkaar bi kon loolu itam lu ñu war a bàyyi xel la loo xam ne nit ki war na koo jombale boppam waaye saa boo xamee ne e, nit a ngi def lu mel ne noonu fu sawet te mënoo ko dindi la nga xam ne moo cay e, e, moo la cay jani rek mooy nga jug bàyyi ko fa moo tax mu ne isil ndax ki nga xam ne xad yastamio day déglu alxibata jëw musharikun aji bokkaale la alxaili aji wax ja fii maa ca la nga xam ne yasma dana ko déglu dana ki nga xam ne day mooy euh, déglu ki nga xam ne mooy jëw nanga xam ne dangay ngay bokkaale ak moom ca bàkkaar ba ki nga xam ne mooy jëw nga toog di ko déglu te femmoo ko bàyyi ko muy wax di continuer di euh, wax ci derub jàmbur loo xam ne lu araam la na nga xam ne kookee da ëllëg bàkkaar boo xam ne am na ko bu ëllëgee da nga ko bokk ak moom bàkkaar boobee kon bàkkaarub aji jëw moom mi nga xam ne mooy wax dong du moom moo koy amee waaye moom mi nga xam ne daf koy wax day amee bakaar bi waaye yow mi toog di ko déglu te fem moo ko bàyyi ko mu continuer di wax euh, mu mel ni li muy wax daf laa neex na nga xam ne euh, sa nopp yooyu ña ngay am ca bàkkaar ba moo tax kon mu ne ni nga war a jëfandikoo say nopp de mooy kun na nga nekk zastimaan di aji déglu li tilawati ñeel jàng alquran wama ak la nga xam ne wala méng na ak tilawata jàng alquran tulaaxi kon da nga dajeeg al aqwama yoon wa gën a jub ne na kon ni nga war a def rek mooy del teewlu bu baax a baax a baax ci say nopp li nga xam ne mooy euh, njàngum alquran del jàng alquran di ko dégtal say nopp wala ngay dem fu ñuy jànge alquran di ko déglu waaye euh, wala ngay dem ci jataay baax yi nga xam ne mooy majalisu as-saada nga fay dem difa toog di fa euh, dég di fa déglu li nga xam ne mooy lu baax ak euh, xam-xam ba nga xam ne moom lañ fay wax nee na loolu lépp lu la mën a jariñ la te lu la mën a andil njariñ la ci say nopp lu la mën a fàggul yiw la bàyyi ko ci cër bi nga xam ne moo di say nopp waaye nag su fekkee ne dang nga koo da faa loola dem di fa di ca déglu leneen loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf ko araamal bu boobaa loola day mujj soppiku rek euh, doon euh, ay mbugal waaye doon ay bàkkaar yoo xam ne ëllëg yowmal xiyaam da nga ak suñu borom moo tax sëriñ bi ne wala takun bul nekk mustami'an di aji déglu li xayri ma ludut la xam ne yaquudu dana womat lakka ñeel la am nan kóolute wa karaman ak tedd nga sëriñ bi radiyallahu anhu nee na bul euh, di déglu mukk ci say nopp lenn loo xam ne euh, lu dut loo xam ne ëllëg mën na laa ommat jële la ci jëmale ci kóolute waaye mën na laa ommat jële jëmale ci li nga xam ne mooy tedd nga kon del fexey di teewlu ci say nopp lépp loo xam ne moo la mën a jëmale ci kóolute waaye moo la mën a euh, jëmale ci sant xéewal gi la suñu borom subhanahu wa taala defal waaye moo la mën a jëmale ci ak tedd nga Euh, te loolu mooy lan mooy di ci déglu lu mel ni ay euh, alquranul karim waaye di ci déglu lu mel ni hadis bi sallallahu alayhi wa di ci déglu lu mel ni waxi mag ñu baax ñi di ci teewlu lépp loo xam ne euh, mën na laa indil njariñ moo xam ci sa wàllu diinela wala sa dunduk àdduna ñaar yëpp man na laa indil njariñ waaye lépp loo xam ne nag suñu borom subhanahu wa taala daf koy aaye nga moytandiku bu baax a baax te loola Euh, bokk na ca lu mel ni di jëw nit ki di ko tudd fu mu nekkut di yàq ab deram wala euh, di euh, sosal nit ñi nit di sosal nit ci sa kanam nga toog di ko déglu te aayewoo ko ko yooyu yëpp ay biir la yoo xam ne mën naa andi nit ki ay jafe-jafe bu baax a baax a baax kon dañuy tuub bu baax te jégalu di wàcce foofu ñu kàddu di wax ni in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh